waaw li tax ñu daje fii dafa nekk benn séminaire boo xam ne euh, séminaire euh, continental euh, fukki réew ñoo ko daje ak partenaires yi nga xam ne ñoo leen doon jàppale si programme boo xam ne mu ngi commencé woon 2017 ba 2019 donc tey dañ ñëw fii pour xool kenn ku nekk mais mais si réew bi nga nekk liggéey bi nga xam ne moom nga fa def

li nga xam ne sen seen protection sociale assuré wuñu ko employé li nga xam ñoko wara assurer assuré ansi ko mais aussi tamit am nañu euh, loo aussi euh, benn convention ñu koy wax la convention 176 bi nga xam mo garantir garantir euh, problème santé et sécurité si biir aussi état du Sénégal ñom la interpeller mais pour que ñu ratifier convention bi donc boy xol euh, si certaines mines am na lu bare bare lu lu des parce que patron y fa nekk euh, ñu ngi jël alalu réew réew mi mais partagé wuñu ko ak travailleurs yi partagé wuñu ko aussi ak euh, population bi nga xam ne ñu ñoo nekk si secteur bi ñun en tant que syndicat loolu mooy xeex bi nga xam ne ñun moom la engagé engagé ko aussi avec nos partenaires mais yi nga xam ne ñoo ñu financé le programme. Liguey bi li ko undu mooy loo nga xamante dañ koy rafetal d'abord. moo di ne ñëw fii ci évaluer programme bu nga xamante ni ñetti at lañ ko tëraloon 2017 2019 pour xool li nga xamante moom lañ tënkoon ci liggéey lan lañ ci mën a am ci ay jàngat euh, ci anam bi nga xamante nag moom lañ ko bokkee alors lu ko wundu parce que tout simplement dañ gis ne Afrique euh, économie alal ji nga xamante ni yore na ko ci wàllu mine ci wàllu industrie extractive am na solo am solo boo nga xamante fimne fi mu ne ku ci nekk yaa ngi ñëw àdduna bi yëpp nit ñaa ngi ñëw di ci exploité si alors loolu nag dafa am euh, aspect positif yo nga xamante non seulement comme ni ko travailleurs yi waxee ñëpp war nañ ci bénéficier mais mais na nag ñen ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen di accueillir ñun ñoo leen dalal waaye en même temps nag am na ay problèmes yo nga xamante daf koy soulever en même temps loolu nag moom mooy li nga xam ne mooy undu li nga xamante ni ku ci nekk di nga gis di nga ñëw indi sa wàll yow nooy xool ba nga xamante ni di nga mën a bokk ci ci liggéey bi. balaa ñoo egg ci xaatimu convention boobu dafa am lu am solo loo nga xamante ni waruñ ci mën a gëmm suñuy bët moo di ne Sénégal réew mu nga xamante ni état de droit la comme ni koy waxee waaye liñ fi def ci wàllu googu am na solo ba nga xamante ni même buñ xaatimagul loolu dëgg-dëgg war nañ ci mën a liggéey. donc man mi wax ak yow dëgg-dëgg am naa ci lu ma lu ma ci xamakus néew parce que nekkoon naa ci pendant jurómi at yoo xamante ni Euh, nekkoon naa fi comme inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale ku wax Thiès xam ne zone la bu nga xamante ni li fi nekk ci mine kenn mënu ko jeexal donc moo tax du quelque part damay wax ne du hasard bu fekkee ne atelier bi Thiès moo ko ay kay yiral waaye gannaaw loolu da ngay gis ne Sénégal am na code minier bu bees lu tax mooy pour jël les devants donc yoon la bu nga xamante ni bu gudd mais liñ ci def am am na solo am na solo boo nga xamante ni bu ñu buñ ci teg tànk waaye itam gannaaw loolu am na bu yàggul def nañ li ñuy wax.

donc way loolu dafa mëna nek rek lo xamné daf ñuy encourager suñ sañon suñ sañon ñun duñ mëna wax né nombre bi lañ am waye bis bu nek ñu gis lu bess parce que loolu mom moy développement loolu moy croissance